bismillahi walhamdulillah walsalatu walsalaamu ala maulana rasulillah sayidina wa xabibina muhammadin ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala balaa ñu dem continuer jeexal sifaatul xuruuf euh, question yu gàtt rek euh, mu nekk benn genre fàttali ci euh, maxaarijul xuruuf bu ñu waxee maxaarijul xuruuf mooy génnuwaayu xaraf yi ma bëggoon xam xaraf yi génnee ci throat mooy xalq wala gorge ñaata xaraf lañu ci lu gaaw six kan ma wax loolu Ajaa Njóoba waaw macha allah six ban ak ban ak ban. Hamza. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayn. Mm-hmm. Ha. Ayn. Ha. yes Hamza ha ayn ha ghayn kha ni ñu toppante noonu noonu la ñu toppante ñaar yu njëkk yi ñooy génnee ci suuf. ñaar yi ci topp ci digg bi ñaar yi ci topp ci wetu làmmiñ bi mana ñoo gën a jege gémmiñ bi muy xayin ak xoo macha allah ok das si njóoba aja Fatou Kiné ñaata lettre ñooy génne ci làmmiñ bi how many how many am sorry yes mën nañu wax ñaata lettre mën nañu wax ñaata maxraj làmmiñ bi ñaata maxraj la am ñaata génn waaye ñaata point d'articulation Fatou Kiné ten. ten for point ten for eighteen letters masha allah ten for eighteen letters masha allah ten for eighteen letters masha allah gis nga yi ñu njëkk a wax thumma li aqsal xalqi eh, hamzun haau thumma li wastihi fa aynun haau adnaahu ghaynun xaauha walqaafu aqsal lisaani fawqu thumma alkaafu yi mooy Euh, xuruuf yi nga xam ne ñooy génnee ci xalaq léegi fatimatu xuruuf yi nga xam ne ñooy génnee ci euh, làmmiñ nga ne eighteen lañ est-ce que mokkal nga mën nga ma limal eighteen yooyu mën nga ma limal eighteen yi génne ci euh, làmmiñ waxaat ko faa faa nga kaaf kaaf yes is a letter aha aha non non bi fa nga wax ko pas cha cha du lettre shiin mooy lettre waaw parce que boo ma boo ne ma cha wala damay jaax loolu mooy suñ commencé ok ok so commencé waatal qaaf aha kaaf aha jiim jiim mhm shin shin very good yaay yaa aha yaa mhm daa bood wala daal nga bëgg a bood wala daal ñaar yëpp ñaar yëpp lettre kii lañu uh-huh. ñaar yëpp si lettre làmmiñ siin siin nga wax wala chiin siin siin siin ak chiin yëpp xarafu làmmeñ lañ zaal zaal zaal nga bëgg a wala zaay zaal ak ak zaa sood sood sood siin. siin waxoon nga ko. Um. ra ra. ra aussi wax nga ko. jiim. ah jiim naa jiim wax nga ko. doad ah. nga bëgg a wax. you wanna ah? what is team. ta ta. taa nas taa un ñu ne taa mu gàtt hmm? macha allah ok so bu ñu delloo ci uh, ñu delloo ci jazariya dinga nga gis dañu wax uh, aqsa wal qaafu aqsa lisaani fawqu summa alkaafu qaaf moo uh, fi gën a sori ci làmmiñ bi kaaf topp ci dégg nga Yusuf digg làmmiñ bi jiim shiin ak uh, yaa dégg nga ci peggi làmmiñ bi daad hmm? boo jógee foofu ngay wàcc laam nekk ci suufu maxraju daad daad hmm? nuun nekk ci catu làmmiñ bi raa jege ko waaye gannaaw làmmiñ bi la gën a lañ koy gën a dugal loolu yëpp dem waxoon nañ ci hmm, dañ ciy delluwaat rek pour ñi nga xam ne ñu ngi soog a ñëw ñu am idée xëy na dinañ ci dem ak ñoom ci détail ah ak daal ak taa ñoom ñu ngi jóge aussi ci catu làmmiñ bi ak ci bëñu kaw yi hmm, dégg nga wa mustakin minhu lettre nga xam ne dañuy boo koy wax da ngay dafay mel ni kuy waliis wala dafa am picc buy sab ñetti leetar lañ mooy yan ak who can help me ñetti leetar lañ yi nga xam ne ñooy leetar yi safir dini siin aha shiin saad yes um, ñoom ñu ngi jóge ci catu làmmiñ yi wa min fawqi thanaa as mm-hmm. ah, ci kaw tuñu ci suuf mm-hmm. dégg nga avoo wa daal wa saa ñoom lil ulya mhm. lil ulya waaye min tarafayhima nag ci eh, cati làmmiñ ak ci cati bëñi kaw cati làmmiñ ak cati bëñi kaw la ñett yi di min batni shafa falfa maa atrafi thanaaya al mushrifa fa fa nag mu ngi génnee ci su bët tuñu suuf bi ak cati bañu kaw yi faa hmm? hmm? li shafatayn il waawu baun miimu wa gunnatun maxrajuha alxayshum li shafatayn il waawu baun miimu waaw ak ba ak miim yëpp ci ñaari tuñu la ñuy jógee ab am aw boo ko bëggee ci pratique rek essayé rek danga koy maas sukkoon aw nga mel ni da ngay former benn o ab am wa gunnatul maxrajuha al xayshum gunna nag mooy nosal bi bakkan bi di nos wala di nosal moom lay wax na ci espace vide boobu ci bakkan bi lay génne hmm? léegi nag ñu jàngoon ñu tàmbali woon sifaatul xaroof sifatul xuruf maxraj wax naa leen xaraf bu nekk dafa am tur comme nit am dëkk comme nit am melo hmm? tur yi mooy comme liñ doon alif ba ta tha jim xa ba mu jeex hmm? waaye léeg-léeg ci suñu dëkk dafa am ñoo xam ne buñ lay jàngal alphabet bi duñ la ko jàngal dañ koy mas dañuy ñëw rek na la a ba ta tha ja xa xa xam nga boobu doxul boobu doxul nag hmm? ba léegi rek yow jàngagoo jàngagoo lettre bi mu ngi mel ni rek xale bi nga ñëw naan ko tëpp na mër fa la dëbb jàngale goo ko ABCD foo ñu jàng turu xaraf yi leen soog ci pour euh, mettre accent. numéro maxaarij yi buñ ne maxaarijul xuruf mooy point d'articulation yi fan lañ dëkk léegi nag buñ ne sifaatul xuruf mooy melow xaraf yi sifaatul xuruf mooy melow xarafi mooy xaala bi nga xam ne mooy gaar xaraf bi suñ koy tudd ah ni ñuy tuddee xaraf bi ndax xaraf dana bokk ak moromam fuñ dëkk waaye façon bi nga leen di tuddee façon boobu mooy wane meloom mooy wane différence bi mu différent ak moromi xarafam yi hmm? booy jàng sifatul xuruf the quality of the letters ñetti eh, yëf yu am solo ñoo ci nekk bu njëkk bi mooy xaraf yi bokk fuñ dëkk maanaam xaraf bokk ak euh, point d'articulation di nga leen mën a xàmmee ñaareel bi dana tax nga xam xaraf yi am doole ak xaraf yi amul doole xaraf yi dafa am xaraf yoo xam ne dañoo nekk xaraf yu diis am xaraf yoo xam ne dañoo nekk xaraf yu woyof wala nga ne dafa am xaraf yu fort am xaraf yu faible Hmm? boo xàmmee xaraf yi foor ak xaraf yi feebarut yi foorut ci ngay xam xaraf yi nga mën a idgham ak yi nga mënta idgham maanaam xaraf yi nga xam ne dañu foor doo leen mën a idgham ci yeneen xaraf yi nga xam ne dañoo faible par exemple parce que boo idd ko idghamee ci xaraf bu faible dafay dindi doole ja donc am na ci xaraf yi euh, yaaram yoo xam ne dañu dëgër am xaraf yoo xam ne dañu woyof hmm? ñetteelu njëriñu xam sifaatul xuruf mooy nga mën a rafetal tudd gi ngay tudd xaraf yu bokkul génnuwaay nga mën a rafetal tudd gi ngay tudd xaraf yu bokkul génnuwaay xaraf yu bokk génnuwaay di nga leen xàmmee xaraf yi fort ak yi faible di leen xàmmee waaye rafetal yi bokkul génn waay lu tax ndax xaraf bu ne solol nga ko mbuboom yaa ngi koy mën a defee ci boo xàmmee sifaatul xuruuf loolu nag moom la ñu téere bi di jàngal fii hmm? euh, wax na njóoba nañu fii ñaata nga ñu waxoon fii sifaatuha ajaa njóoba liiral ñu premier sifaatuha aha uh, jahrun wa rihwun uh, wa rihwun mhm. mustafin mhm. mhm. uh, munfatihun musmatatun waddiddaqun macha allah yemal foofu léegi nag na baax na baax na baax na en fait yéen ma doon laaj sànq tableau bi moom laa doon gis parce que ñu en fait ok baax na waaw léegi foofu laa ne moom lañ ja moom lañ tàmbali woon léegi sifaatul xuruf ñaari façon la loolu ñu xàmmee ko maanaam melow xaraf ñaari façon yi melow xaraf ñoo am dafa am melo yoo xam ne dañoo am safaan ak melo yoo xam ne amuñu safaan loolu rek la nag sifaatul xuruf yëpp la yoolu la maanaam xurufun laha didd wa xurufun laa didda laha hmm? maanaam guddi dafa am safaan luy safaanam ah, ah suba ngoon mooy safaanam xees ñuul mooy safaanam njool gàtt mooy safaanam léegi nag bépp xaraf bu melowoo benn melo du mën a melowoo melowoo ak safaanu melowoo dafa am ci xaraf yi xaraf yoo xam ne ñoom dañu am safaan maanaam the opposite sifa the opposite quality am na ay xaraf nag yoo xam ne amuñu safaan they have no opposite léegi nag bépp xaraf boo dégg ne am na opposite maanaam bépp qualité laa sifaat laa wax c'est pour boo dégg am na opposite sifa boobu bu nekkee ci xaraf opposite ba du nekk ci même xaraf bi xaw ma leer na am maanaam bépp melo buñ la wax ne am na safaan melo bu nekkee ci ab lettre safaanu melo du nekk ca lettre boobu waaye melow yi nga xam ne amuñu safaan yooyu danañ nekk ci yenn lettre bañ a nekk ci yeneen lettre danañ nekk ci yenn lettre bañ a nekk ci yeneen lettre pour mu gën a leer lettre boo gis ci arabic alphabet am na au moins juróomi melo ci melo yu opposite Hmm? Njóoba Adja Njóoba lan laa wax ma ne lan lan laa wax ndax leer na. waaw lan laa wax. li ma mujj wax lan la lu ma wax. lettre boo gis ci lettre alphabet bi am na au moins ñaata melo. déedéet am na au moins ñaata melo. am na juróomi melo ci melo yi xam ne. ay opposite qualities lañ lettre boo gis ci arab nag am na lumu mu néew néew juróomi melo ci opposing sifaat yi ci melo yi waaye nag lettre bu ci am aw melo du mën am safaanu même melo ba am déet hmm? ñaata façon ngi melo la waxoon ne am non non non juróomi melo loolu mooy limu melo opposite ñaari façon ngi melo rek ñoo am melo yoo xam ne am nañ safaan ak melo yu amuñ safaan melo yu am safaan ñooy juróom melo yu amul safaan waxaguma ñaata lañ imaam melo mooy lekk melo melo melo mooy mooy melo maanaam qualité mala melo mooy qualité maanaam yow boo xee xeesaay ak ñuulaay melo la gàtt ak njool melo la am déet ah mooy qualité yi nga xam ne ñooy nekk ci ab lettre bañ mën ko xàmmee ak morom ka hmm? maanaam lettre danañ ko xàmmee ak morom ka ci ñetti yëf benn mooy wa ñaareel ba mooy fa mu dëkk ñetteel ba mooy na mel xam nga loolu ñun ñëpp am nañ lool wala léegi yow mën ngaa tudd njóoba par exemple fii ni ci ci ci classe bi am nañ fi ñaari Fatima am déet ñoom ñoo xam ne am nañ Fatima Ibrahim Fatima euh, dégg nga kan am nañ fi sax lu ëpp ñaari Fatima bokk Fatima Konare waaye ñoom ñaar ñëpp bu ñu tuddoon Fatima Ibrahima du sotti waaye ku nekk ci ñoom am nga lu luñ lay xàmmee ci sew tur bu fekkoon danañ tudd Fatima Ibrahima yi tamit am na luñ leen di xàmmee Fatima Ibrahima mu fële ak Fatima Ibrahima mu feye mooy comme caractéristique. waaw melo yi ñooy caractéristique yi loolu sifa la waaye tur bi tur bi caractéristiques yi mooy melo yi mooy qualité yi wala characteristics wala sifaat ni ko arab di waxee waaye ba ma dama ko bëgg a simplifier eh, ba nga amee ba nga tuddee Fatima kële tudd Njóoba léegi seeni tur tàqale na leen yéen ñaar ñëpp bi ngeen bokkee benn kër bu ngeen dëkk am na leen luy tax ñu xàmmee leen mën ngeen a bokk fu ngeen dëkk bokk ndey ak baay waaye danañ xam ne kii moo gën a xees kële wala kële moo gën a gàtt kële lettre yi tamit noonu lañ mel waaye dama bëgg balaa ma dugg ci détail ma lim yi may wax nii ñu takk leen buñ leen mënee bind ñu bind leen mooy there are two characteristics two types of characteristics two types of qualities of letters ñaari façon ngi melo lettre rek ñoo am bu njëkk bi mooy melo yi nga xam ne am nañ safaan wolof nag lay lakk wolof yu leer nañ <laughs> léegi ngi dégg ñaareel bi mooy melo yi nga xam ne amuñu safaan melo yi nga xam ne am nañ safaan laa ne juróom lañu melo yu amul safaan nag boroom téere bi juróom ñaar la ciy tudd waaye ca biir téere ba dana ci wax luy niru ne juróom ñett la ndax xunna bi ñu jàng ci maxaari ji danañ ko borom xam-xamu taj wi dañ ko def melo tamit waaye borom téere bi moom indiwul xunna ci melo yi ci bayti yi hmm? bayti yi melo yi am safaan juróom lañu melo yi amul safaan juróom ñaar la ci indi Fatou Kiné lan laa wax melo yi am safaan ñaata lañ melo yi am safaan juróom lañu melo yi amul safaan juróom lañ. déedéet ba juróom ñett. waaw kay thank you thank you macha allah macha allah macha allah léegi nag lettre boo gis ci arab benn maanaam lu mu tuuti tuuti dana am juróomi melo bépp lettre ci arab every single Arabic letter has at least five. qualities loolu lu muy firi mooy lettre boo gis ci arab am na juróomi melo ci melo yi nga xam ne opposing qualities lañ Fatima Ibrahima mhm. are you here lettre boo gis ci arab am na at least how many qualities juróom from the five from the five opposing qualities lettre yoo ci arab am na juróom juróomi melo from the five opposing qualities maanaam benn mu am melo ci five fi wala mu am dégg nga juróom melo ci five fi wala mu am seeni safaan maanaam the five opposing qualities bépp lettre ci lettre arabe yi am na juróom ci juróom yooyu Hmm? juróom ci juróom yooyu la maanaam bu mu ne juróom yooyu maa ngi ci jublu rek fukk ndax bu fekkee juróom yooyu am nañu safaan juróomak ak juróom ñaata lay doon fukk ten ok kon nag fukki lettre yooyu nga xam ne juróomi yi nii lañ mel seeni safaan mel na le lettre boo gis ci araab am na at least juróom ci yooyu waaye nag benn lettre du am benn ci melo yooyu ak même safaanu melo woowu loolu mooy li ñuy njëkk a jàpp muy benn. benn. lettre boo gis ci arab daal am na juróomi melo ci opposing qualities yi ñu jàppee ko noonu. Hmm? mu simple lettre boo gis ci arab am na benn melo ci melo yu safaan am na juróomi melo ci melo yu safaanoo yi. Hmm? leer na. léegi melo melo yi nga yi nga xam ne nag du ñuy ay melo yu safaanoo mooy seven uh, last seven other qualities yi lettre boo gis ci arab benn ci ñetti situation yi rek la mën a nekk bépp lettre ci lettre arab yi soit amut benn ci non opposing non opposing qualities yi wala am na ca benn wala am na ca ñaar pas plus loolu xam nga lu muy firi mooy arab mooy leetari arab boo gis benn am na juróomi melo rek la am mbaa juróom benn mbaa juróom ñaar waaye benn leetaru arab du am lu ëpp juróom ñaar du am lu manqué juróom ci ma ci melo amul benn leetaru arab bu am lu ëpp juróom ñaari melo amul benn lettre arabe bu am lu matut juróomi melo. Mhm. if mhm. benn lettre arabe nekk am na juróomi melo. at least ci euh, yu mhm. pare benn lettre arabe bu nekk. am na benn wala ñaar. Euh, caractéristique from the. Ah, from amul contraire yi amul contraire yi waaw. yi amul contraire waaw non non bul ko ne bul ko ne bul ko ne bul ne <laughs> fi nga fi nga fi lu njëkk li noonu la waaye lu deuxième bi moo am problème dama ne. Uh-huh. bépp lettre arabe am na at julu at liste juróomi melo ci melo yi nga xam ne dañu am contraire. Uh-huh. Mm-hmm. waaye melo yi nga xam ne amuñu contraire mm-hmm. lettre arabe boo gis benn amu ca benn ñaar am na ca benn ñett mm-hmm. am na ca ñaar mm-hmm. maanaam am na ci lettre arabe yoo xam ne amuñu benn ci non opposite qualities xam nga li wax maanaam am na lettre yoo xam ne amuñu benn ci melo yooyu nga xam ne amuñu safaan Mm-hmm. am na ci lettre arabe yoo xam ne am nañ ca benn mm-hmm. am na ci lettre arabe yoo xam ne amuñu am nañ ci ñaar waaye nag amul ci benn lettre waaye amul ci benn lettre bu ci am lu ëpp loolu mm-hmm. léegi nag ñaar léegi lettres yi nga xam ne ni euh, arab yi nga xam ne amuñu benn ci melo yu safaanoowul yi ñoom minimum ñaata melo lañ am macha allah juróom thank you lettre yi nga xam ne am nañu benn ci melo yu safaanoo wut yi minimum ñaata ñaata melo la ñu am six ba sept déedéet minimum laa wax thank you minimum six melo yi nga xam ne am nañ benn ci melo yu safaanoo maanaam lettre yi nga xam ne am nañu benn ci melo yu safaanoo wut yi minimum am nañu six melo melo yi nga xam ne am nañu ñaar ci melo yu safaanoowut yi ñaata melo la ñam maanaam lettre yi nga xam ne am nañu ñaar ci melo yu safaanoowut yi ñaata lettre la ñam ñaata melo la ñam maximum sept kon melo euh, lettre boo gis minimum am na juróomi caractéristique maximum am na juróom-ñaari caractéristique juróomi caractéristique yi nga xam ne ñooy minimum fokk mu bokk ci opposite lettres yi bu fekkee ne amul benn ci lettres yi amul contraire juróom rek la am su ci amee benn juróom benn la am su ci amee ñaar te mooy maximum juróom ñaar la am loolu leer na léegi nag léegi ah, bu amul question ñu continuer mhm. leer na loolu leer na oh, <laughs> xam naa ne ñi ñi nga xam ne ñu ngi soog dugg ñu ngi soog a dugg moom dañu ñu ngi naan ñi ñoom dañuy lépp waaye léebu ñu de. olof bi la olof bi. olof bi ah, kon <laughs> léegi nag kon ñu ñu ñu ñu consulter borom téere bi mu wax ñu melo yi ci benn bayt dinañu wax juróomi melo yëpp. Ah. léegi nag juróomi melo yooyu buy joxe exemple nag seeni safaan rek lay indi dootu leen tudd. seen i contraire lay tudd waaw tudd ak seen i xaraf bu ko defee lu mu tudd rek nga xam ne mooy melow ya mu njëkk a tudd xam nga daf fii dafa ne sifatuha jahrun wa rixwun mustafin munfatixun musmatatun wa didaqul mahmusuha faxahu shadiduha lafdu ajid qatin bakat mu ne xa melow xaraf yi fukk lañ ak juróom-ñaar fukk ya juróom ak juróom yu safaanoo la juróom-ñaar ya safaanoo yi nga xam ne nag dañoo safaanoo muy fukk yu safaanoo yi bàyyil ma indil la juróom yi rek boo leen mokkalee bayti yi ci des yëpp ma jox la exemple ci seeni safaan bu njëkk ba mooy jahrun ñaareel ba mooy rixwun ba mooy mustafilun ñeenteel ba mooy munfatixun juróomeel ba mooy musmatatun hmm? beneen bi mooy jahrun ah, mu ngi ni sifaatuha jahrun mu ngi ni wa rixwun mustafil munfatihun musmatatun mu soog a ñëw nag ne ne wa didda seeni safaan nag xul mooy yi ma bëgg a wax si nii sifaatuha melow ba ca njëkk mooy jahrun mooy melo woo xam ne dafa biir wa rixwun ak melo woo xam ne dafa nooy mustafilun ak melo wu suufee munfatixun ak melowu ubbeeku musmatatun ak melowu ñu tere <laughs> loolu la baat di firi waaye nag e, gën naa yaatu noonu waaye baat yi li ñuy aussi niroo nag la melo ye di wax hmm? léegi juróomi melo yi ñoo am lan mooy seeni safaan mahmusuha mooy safaanu jahrun shadiduha mooy safaanu rixwun ah jahrun mooy lan mooy meloo xam dafa lan du dafa fës laa waxoon lan mooy safaanu lu fës nëbbu waaw mooy nëbbu waaw mooy lu làqu waaw hmm? dégg kaw ca kaw jahrun booy booy biral booy booy booy julli ñu ne la da ngay da ngay biral luy safaanu biral wax ca kaw luy safaanu wax ca kaw wax ci suuf waaw kon jaharu mooy kaw mooy mooy wax ju kawe xam hamsun mooy wax ju suufe ci waxin ma firi leen noonu pour mu lee pour mu ma jegal ko rixwun lu nooy lan mooy safaanu lu nooy lu dëgër shadidun shadiduha mooy lu dëgër hmm? mooy melowu tar melowu nooy melowu tar shadiduha mooy safaanam mustafilun ñetteel bi mu ne mustafilun mooy melo yoo xam ne dañu war a ne melow suufe la am suufe lan mooy safaanam kawe mooy wasab ulwin ulwin mooy kawe mooy xuruful istila hmm? munfatixun melo yoo xam ne dañoo ubbeeku ubbeeku lan mooy safaanam tëju mooy xurufun mutbaqa melo yi ñooy melo yi nga xam ne xaraf yi ñooy xaraf yi nga xam ne seen dañuy tëju am melo yu tëju ah mooy itbaax hmm? musmatatun musmatatun mooy luñ tere luñ tere luy luy luy safaanam luñu terewul luñu terewul léegi nag melo yooyu buñ ne luñ tere mudlaqa mooy seen safaan xam nga lu tax ñu ne melo melo yuñ tere mooy ay melo la yoo xam ne mënoo cee former baatu arab bu ëpp ñetti leetar pour nga former baatu arab bu ëpp ñetti leetar fokk nga boole ci xuruful muzlaqa moo tax ñoom mënuñoo former baat dégg nga ñoom kese saañu ñu ñu ñu ñii moo tax ñu tuddee leen melo yuñ tere ñi ñu yóbbaale nag mooy melo yi nga xam dañoo cate dañoo cate moo tax ñoo tax ñoom ñu mën a nekk ci baat yépp daanaka doo gis baat boo xam ne ni nekkuñu ca waaye doo gis baat aussi bu am ñeenti lettre ba lu ko ëpp te nekkuñu ca waaye loolu mooy firi en général firi mu mu mu mu terre du noonu pour ñu xam rek lim yi kon juróom yi nga xam ne eh, ñoom la tudd mooy jëhër safaana mooy hëms rixu safaana mooy shidd mooy shidda wala shadid mustafil safaanam mooy ulu dégg nga musmata safaanam mooy mudlaqa léegi nag rixwu bii mu wax ne safaana mooy shidda am na xaraf yoo xam ne dañoo nekk seen diggante ñooñu la ñuy tuddee albayniya moo tax mu ne la wa bayna rixwin wa shadid lin umar am déet leer na waaye mën naa gën a leer kon bayt bu njëkk bi lim ñuy jàngal mooy juróomi melo yi hmm? léegi nag bu may firi juróom yooyu bu ma firi rek dama koy booleeg safaanam sifaatuwaa melo yi xarafi danga naan jahrun bu njëkk ba mooy melow jahr lan mooy safaanu jahr mahmuus mahmuus léegi nag xaraf yi nga xam ne dañu am melow jahr ak xelaf yi nga xam dañoo am melow mahmuus xam nga lan mooy seen différence mahmuus waxaat mooy yi ñu defal hams léegi nag boo doon wax rek nga naan hams jahar hams woy wi moo tax mu ne mahmuus waxaa waaye xuruuf da sifaatul sifaatul ak sifaatul hams sifaatul jahar mooy yi nga xam ne soo leen di wax nooyi gi dafay tëju lettre yi nga xam ne soo leen di wax sa nooyi dafay tëju mooy ñoom lañuy ñuy wax lettres yi jahar hams mooy lettres yi nga xam ne soo leen di wax sa nooyi gi dafay daw du tëju xaw ma leer na am déet hmm? bépp xaraf boo xam ne boo koy wax nooyi gi dafay daw xarafu hams la bépp xaraf boo xam ne boo koy wax nooyi gi dafay tëju xarafu jahr la léegi xaraf yi ngay wax nooyi gi di doy lu lu tax na nooyi gi di daw di di daw duñ toog xaraf yi nga xam ne soo leen di wax boo leen di wax nooyi gi dafay daw xarafi yi non non xaraf strong letter moom foo ko fekk mooy yi nga xam ne du bo ñu ne la baat ba du daw wala nooy ga du daw su ne la nooy gi dafay daw wala ñu ne la baat bi dafay daw rek mooy xarafu xarafu is a week later léegi bu may wax baat yii nii ñaata baat ñoo ne ñaata lettre ñoo nekk fii faxathahu shaxsun sakat ñetti baat hmm? oh, ñaata lettre la wax ñaata wax ma hmm. ñaata baat dix lettre kon fukki lettre ci xarafi alphabet yi ñooy xaraf yi nga xam ne xarafi hams lañ yi nga xam ne dañu am melow hams soo leen di tudd sa nooyi gi dafay daw boo leen di tudd sa nooyi gi dafay daw maanaam baat bi dafay lo dafay dafay faible pourquoi parce que nooyi gi nga xam ne moom mooy moom mooy daw baat bi dafay faible lu tax parce que nooyi gi dafay daw lu tax parce que doo articuler yi ci seen mbax maxraj yaa ngi dégg de doo articuler wu ci seen maxraj ah léegi nañ nañ nañ essayer lool waxal af waxal af fa bi boo ko looy wax looy wax du af waa léegi booy wax af tegal sa baaraam ci sa kanam gémmiñ gisuloo benn benn nooye buy génn af mm-hmm. ax as ah ash ax as as ak at gis nga seetlu nga ko hmm? sukk boo ci sukkoon rek nga teg sa baaraam ci sa gémmiñ da ngay gis lan dafa am nooyi buy lan buy buy daw buy génn loolu mooy hams nooyi googu di génn booy wax baat bi mooy hams bu leerul ma ma waxaat ko leer na ma jigéen mën nga waxaat du <laughs> ma ne hams fukki lettre yi ñooy lettre yi hams fa xathahu shaxsun sakat mën nañ leen firi waaye li ñuy firi amul njëriñ dañ leen ko defal nii pour nga mokkal ko mhm. yaa ngi dégg maanaam sakata waa ji dafa noppi fa xathahu ñaax ko shaxsun benn waay loolu lay firi waaye loolu amul intere amul amul ñu njëriñ fii li ñu li ñu amul njëriñ rek mooy fukki leetar yi ñu boole ci ñetti baat ñooy leetar yi ñooy leetar yi hams hmm? maanaam sooy sooy sooy tudd baat yi nii sa voix bi du du am doole dégg nga de soit bi boo koy dafay boo am doole ba ànd ak loolu gi dafay daw dégg nga nooyi gi dafay daw ànd ak voix bi dafay faible xam nga mu ngi mel boo doon boo doon doon ëf boo doon ëf dara looy wax ëf n'est-ce boobu fa boobu du faawu arab dégg nga de <laughs> bu dee faawu arab da nga naan ëf dafay woy dafay ëf ah. gis nga as ah. eh ash ak at nga su melul noonu rek mooy baat bi lettre bi tuddoo ko ni ko war a tuddee soo koy tudd baat bi dafay dafa war a euh, lompañ ànd ak ndax nooyi gi daw sooy tudd baat bi léegi hmm? I have mm-hmm. yi laa bëgg wax lettre yi ngeen baal ma léeg-léeg ma bëgg a wax lettre ne baat lettre mooy xaraf baat mooy moo hmm? léegi leetar nii bu fekkee da nga moom si alxuraan bi jàng. Mhm. léegi kii bi dafay daw sa presse bi dafay génn. da mhm. taxaw da ngay pause wala da ngay gaawal. déedéet doo maanaam loolu c'est naturel mënoo ko téye. xam nga xam nga xam nga euh, nooyi buy génn maanaam nooyi bu naturel la su nooyi boobu génnul nooyi bu naturel boobu su génnul mooy am na lu ma bàyyi ci ni ma ko war a jànge yaa ngi dégg maanaam su ma waxee su ma waxee af af te te su ma tegee sama kanam sama baaraam yi ci sama kanam gémmeñ du ma sentir ne benn air mu ngi génn ça veut que af bi waxuma ko waxuguma waxuguma afu arabe peut-être afu africain laa wax wala afu dégg nga soose laa wax wala afu urdu laa wax wala afu indien wala nangam xam nga lima wax mm. waaye daal ni ñuy xàmmee rek hams hams xam nga hams mooy firi ci ci ci làkku yaaram hams mooy firi eh, lu nëbb xam nga yàlla nee na falaa tasmahu illa hamsan bu yowmal xiyaama nit ñi bu ñuy dox dox bu woyof dox ndax ragal nit bu ñëwee tamit nit bu ñëwee tamit yootal la ci sa ci sa ci sa ci sa nopp li mu lay def noonu mooy mooy mooy hams yaa ngi dégg moo tax Hams dafa bokk ci letter of dafa letter bokk ci uh, characteristic of of faiblesse hmm? léegi nag safaanu Hams mooy jëhër jëhër moom bokk ci characteristics of strength hmm? Hmm? of ngi dégg Hmm? donc léegi nag boo xamee lan yan lettre ñooy lettre yi hams muy fa ha tha ha shin xo sod sin kaf ta léegi every other letter in Arabic is jahr kon lettre boo gis ci arab benn am na melow jahr wala am na melow hams amee melow mooy soo koy wax baat bi du dëgër du diis du waaye lu tax dafa am nooyi buy génn maanaam hams bépp baat booy wax nga gis nooyi bi di daw hams la bépp baat booy wax nooyi bi dawut jahr la baat yi nga wax nooyi bi lettre la bëgg a wax xaraf yi muy xaraf yi lettre yi ngay wax nooyi gi di daw ñooy fukki lettre yi soo leen génnee ci fukk ak ak juróom-ñett kon fukki lettre ak juróom-ñett yi des yëpp xuroofu jahr la léegi hmm. léegi par exemple euh, laam waxal al al al léegi tegal tegal sa sa sa sa baaraam ci sa kanam gémmiñ bi nga ne al est-ce que gis nga benn air génn moo tax parce que xarafu jahr la hmm. te al boo koy gis nga dafa am doole bi nga koy bi nga koy hmm. kii da nga ko da nga ko génnee ci max maxraj bi eh, dégg nga euh, nooye gi génnul moo tax baat bi daal di leer baat bi dëgër maanaam mhm. boo koy wax nooy gi mooy tëju baat booy wax nooy gi tëju jahr la baat booy wax nooy gi tëjuwut hams la lettre laa bëgg a wax hmm? fukki lettre yi boo leen di wax nooy gi dafay daw moo tax mooy lettre yi hams bépp lettre booy wax nooy gi tëju nag mooy lettre jahr bu fekkoon ne classe bi ñaari baa ñaari yii rek lañ jàng mu doy xaw ma ndax leer na am bu leerul moom du ma continuer hein leer na bépp lettre booy wax nooyi gi di daw boobu lettre lan la hams booy wax lettre booy wax nooyi gi tëju lettre lan la jahr kon nag buñ la laajee mel lan mooy sif sifaatul jahr mooy mooy safaanu maanaam melow jahr mooy safaanu melow hams lan mooy melow hams mooy lettre yi nga xam ne boo leen di wax dégg nga nooyi gi dafay daw melow nooyi goog di daw looloy hams lettre yi nga xam ne soo leen di wax nooyi gi dañuy tëju tëju googu nooy gi di tëju mooy jahr waaw strength non non du strength ak ak nañ ko firee parce que jëhër ñu maanaam jëhër dafa bokk ci lettre strength waaye du moom rek mooy parce que xaraf bi nga xam ne mooy shidda mooy gis nga mooy mooy bii maanaam jëhër dafa bokk ci lettre yi foor yi waaye firiwul ne moom mooy strength ak weakness buñ ko nañ ko firee jëhër ak hams <laughs> ah. léeg léeg-léeg translation yi nax ok nax Eh, lañ leen tuddee rek jahar ak hams ak yaa ngi dégg hmm? parce que léegi jahar nag mooy bu nan nga koy xamee nooy gi dafay tëju hams nan leen di xam nan koy xamee nooy gi dafay daw du tëju am I making sense hmm? kon kon fukki lettres yi jàngagum jàng nañ ñaar mu des ñaata fukki lettres yi nga xam ne opposite letters la ñu def ñett. déedéet fukki leetar laa wax léegi waxatuma juróom. mu de mu des eet waaw kay léegi sifaatuha jahrun loo teg wa. wa rix hmm, wun. Hmm, wa rix wun mooy li ñuy wax xuruufu rixwa wala xuruufu rixaa xuruufu rix wala xuruufu rixaa wala xuruufu rixwa yëpp baax na. Hmm? ar rixwu mooy xaraf bi melo maanaam adjectif la rixwa wala rixaawa mooy lan mooy nooy mooy nooy hmm? nooy luy safaanam dëgër mooy shidda xuroofu shidda moom la wax mooy shadiduha hmm? hmm? kon léegi lettre lettre mën na benn mu nekk mu am melo rixaawa wala mu am melo shidda bépp lettre boo gis ci arab fokk mu am fokk mu am melo rixaawa wala mu am melo lan shidda hmm? bépp lettre ci arab léegi nag lan mooy différence entre rixaawa ak shidda déglu leen bu baax a baax a baax a baax bépp am na am na kuy def bruit de xamu dafa toggam déet <laughs> ok baax na léegi lettre shidda nan lañ koy xàmmee bépp lettre boo xam ne soo koy wax baat ba dafay lettre bi dafa dëgër ba baat bi dafay tëju mooy lettre shidda bu fekkee bu fekkee baat bi tëjuwut mooy lettre rixaawa xam nga am na dafa mel ni jege nag li ñu waxoon ci jëhër ak ak xamsu de wala mm. xam nga jëhër ak xamsu nooyi gi mooy tëju mbaa mu tijjeeku rixaaw ak shidda vocal bi mooy tëju mbaa mu tijjeeku baat bi ci boppam hmm? maanaam jëhër ak rixaawa maanaam fii xams ak jëhër mm. nooyi gi nooyi nooyi mooy lan ci ci ci français respiration bi mooy tëju wala mu tijjeeku fii nag rixaawa ak shidda son bi mooy tëju mbaa mu tijjeeku ah loolay différence ah? bi waaw son maanaam booy booy prononcé baatu yu baatu xorofu shidda uh-huh. dégg nga baat yi dañoo dëgër ba son bi dafay am problème pour génn fa mu war a génnee <coughs> mu ngi mel ni par exemple hamza boo bë boo defee sukkoon ci hamza lay gis nga ni mu ni muy tëjoo gis nga ni mu dëgëree dafay dëgër ba son bi daf pour mu génn problème lay doon ah dafa tëju ja nga ne aj aj bu ci te bu ci defagum xalxala bi parce que xalxala bi moo koy tijji waaye ah, jiim buñ ci deful xalxala hmm, aj lay doon daal buñ ci deful xalxala ad lay doon gis nga ni mu tëjoo ad gis nga làmmiñu ni ni mu kolee ci tuwaawu gémmiñ bi ad ah aq aq bu dee ta ab bu dee ba ab bu dee kaaf ak bu dee taa at gis nga gis nga tëju boobu mooy mooy moo tax ñu koy tuddee xarfu shidda gis nga bii nag euh, Fatimatu bii lii mooy the the sifa of strength the characteristics of strength yaa ngi dégg dafay diis ba pare. waaw moo tax man moo tax ñu tuddee ko xarafi shidda shidda mooy tar mooy dëgër <coughs> ah shidda mooy tar dégg hmm? ñun inna allaha shadidul iqaab yàlla ku tar mbugal la ah nag safaanu tar mooy lan nooy woyof hmm? léegi son bi dëgër ba waaw kay riixwa mm-hmm. la son bi dégg nga woyof la son bi dafa daw vocal da ngay gis son bi dafay daw du am problème. Mm-hmm. shidda nag son bi pour mu génn dafay am ne dafay dafay nekk problème dafay tëju. Hmm? looloo tax nga jis mm-hmm. euh, léegi lool looloo looloo tax xam nga euh, ci ci lettres yi. xam nga ci lettre xam yi am na ci yoo xam ne ni ñu ngi ci lettre shidda yi am déet. ah am déet mm-hmm. kaaf ak taa nekkuñ ci kii nekkuñ ci lettre xëms yi mm-hmm. uh-huh. xam nga lu tax ñu bokk ci lu leen boole parce que mm-hmm. biñ dëgëree xëms moo leen di sauver pour ñu génn ci dëgëraay ba parce que bu dul woon bu dul woon xëms doo leen mën ak dafa dëgër nga teg ci xëms muy ak taa dafa ak dafa dëgër nga yokku ci daat hamsa la seetlu nga léegi boo génnee lettre yi hamsa yi ba bu jadd moo doon lettre yi euh, xalxala yi n'est-ce pas léegi gis nga jiim daal xoof ta ba boo bëggee ñu woyof foog nga yokk ci écho xalxala moo tax nga naan aj ad aq aq ab parce que boo ne ab dafa dëgër aq dafa dëgër ak pour nga génnee leen ci seen maxraj il faut nga wut solution maanaam lettres yi ñooy lettres yi nga xam ne dañoo dëgër ba boo leen di wax pour dégg nga son bi du du du dafay am problème pour génn ci articulation ah, ci ci point d'articulation bi ndax seen dëgëraay safaan seen safaan mooy lan mooy lu nooy mbaa nekk ci diggante bi seen safaan mooy mooy xaraf yi nga xam dañoo nooy mbaa xaraf yi nekk ci diggante nooy ak dëgër hmm? xaraf yi ñaata lañu ajit qotin bakat ajit qotin bakat ñaata lañu ah huit eight boo ko génnee ci twenty mu des lan twenty léegi nag yi nga xam ne dañu nekk ci diggante dëgër ak nooy wa bay na rexwin dégg la wax wa bay na rexwin nekk na ci diggante nooy wa shadidi ak dëgër lin umar laam nuun ayn mim ra juróomi lettre gis nga boo leen di wax al nooyuñu ñu an a am ar gis nga nooyuñu dëgëruñu moo tax mën a wax al dafay dëgër da naan al waaye mën wax al parce que dafa neex rek ngay nooyal muy dem déedéet mën a wax an an mën wax an gis nga ayin boo ci gën a kii boo ko boo ko bul wax a parce que du feeñ a am ar hmm? donc li juróom yi boo leen bu ñu fekkee juróom-ñett ñaata lettre ngaam am. treize. treize. Hmm? boo leen génnee ci vingt huit. vingt. nga génne leen ci vingt huit. quinze. quinze thank you donc quinze yi ci des yëpp ñooy xuruufu rixaawa. Hmm? waaw mooy xaraf yu nooy ah. xaraf yu dëgër yi xaraf yi dafa am juróom-ñetti xaraf ci alphabet bi mooy xaraf yu dëgër alif jim daal qoof ta ba kafta juróom yi ñoo nekk ci diggante dëgër ak nooy laam nuun ayn mim ra boo ñuy fukk ñett yi ci des yëpp xaraf yu nooy lañu par exemple fa gis nga dafa nooy xarfu rixaawa la xam nga fii fii est faa nekk na ci fii wala fii faa nekkul fi nekkul fii kon bépp lettre boo gisul ci ñaar yi rek boole ko ci xurufu rixaawa kon am nañ jëhër safaana mooy hams am nañ rixaawa safaana mooy shidda am I making sense Hmm? rixaawa safaana mooy shidda wala rixaawa safaana mooy shidda wala bayniya wala nga ne shidda safaanam mooy rixaawa wala bayniya moom la ñuy wax al xuruful bayniya bayna mooy diggante hmm? xuruful bayniya bayniya bayna bayna maanaam yi nga xam dañu nekk ci diggante Euh, dëgër ak nooy mm, seetlu nga ko que leer na leer na mm. donc nañ ci fukki fukki lettres yi nga xam ne ay lettres yu opposé la ah, melo yi nga xam ne ay melo yu opposé la jàngagum nañ ñaata melo jàng hmm? nañu quatre waaw jàng nañu quatre ci biir quatre yooyu nag am na ci benn boo xam ne moom dafa nekk bay na moo tax fii lay dafay dugg ci catégorie rexwun ak shadid mooy bay na ndax bokkul fii bokkul fële moo tax ñu tuddee ko xuruuful bay bayniya laam nuun ay miim ra hmm? leer na ñu continuer mhm. léegi nag gis nga jëhër ci xarafi kàttan la bokk shidda ci xarafi kàttan la bokk hams ci xarafi yu woyof yi la bokk yu faible yi la bokk rexw ci xaraf yu feebal yi la bokk hmm. léegi jàng nañ jëhër safaana mooy lan lan mooy safaanu jëhër hams jàng nañ rixaawa lan mooy safaanu rixaawa shidda wala bayniya bayniya hmm, shidda léegi nag lu ci topp mustafil mooy xaraf yi nga xam dañoo suufe lan mooy safaani xarafi mustafil mu ne la wa sabu ulwin xusa doxtin qid xasar Hmm? hmm? <laughs> et pourtant li may wax lu yomb la lu simple la ah. lii nii baat ba déedéet baat yi nii baat yi nii xoolal lu muy firi xam nga li nga soxla lii rek nga soxla lu muy firi ak lii li ma li ma sélecté nii soxlawuloo firi bi xam nga li nga soxla hmm. mooy xam ñaata xaraf la. Hmm. daf ne wa saba saba mooy lan waaxid isnaani talaata arbaa xamsa sita saba saba mooy lan sept mu ne wa saba ulwin juróom-ñaari xarafi kawe yi tënk na ko takk na ko xussa ak baatu doxtin qard ak baatu qard wala qid boo ci wax baax na ak sood ak bood ak ghayn ak taa ak qaaf ak zaa yii ñooy xarafi kawe. mooy mustafil. déedéet ñooy safaanu mustafil. mooy wax naa la lu mu tudd fii nii buy joxe exemple safaan bala la indi. summa radadnaahu asfala ah saafiliina mooy suuf maanaam yàlla mu ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim ñoo bindu doomu aadama ci façon bu gën a rafet melo bu gën a rafet thumma gannaaw ga radatnaahu ñu delloo ko asfala saafiliin mu gën a suufe way suufe yi kon mustafil mooy xaraf yi nga xam ne dañoo suufe seeni safaan ñooy xaraf yi nga xam ne dañoo kawe nga ne ko waaw léegi nan laa leen di xàmmee mu ne bàyyil ma jox la lim bi gën a néew bu la joxee lim bi gën a néew lépp lu bépp xaraf bu nekkul fii rek xamal ne ci xaraf yi suufe la bokk léegi booy wax xaraf yi nii xaraf moom la ñuy wax full mouth maanaam boo koy wax xoo par exemple xoo gis nga dafa soo gis nga làmmiñ bi ni muy kawee soo wala nga ne ox os aw aw gis nga gis nga ni ñu kawee de hmm? dañu ay xaraf la yoo xam ne ay xarafu yu foor lañu xaraf yu kawe lañu léegi nag seetal jëlal benn xaraf ci xaraf yu bokkul bokkul ci xaraf nga koy wax like for example ah ayin par exemple gis nga ayin a est-ce que a bokk naag ab ah? nga as est-ce que bokk naag aws xam nga as siin bi as bo bokkul wax aws os maanaam siin waxal siin rek ak sood gis nga ni mu siin ak sood waaw hmm? eh, ah, hmm? donc xaraf ñooy xaraf yi ulu xuruful isticlaa l'istila léegi ñaata xaraf lañu xuruful istila hmm? ok xaa saad daad gayn taa qaaf vaa muy muy ñaata set waaw euh, boo ko xamul nag bu ne xussa doxtin xib xasar nga ne xasar ci la bokk di la xasar yi bokkul ci parce que sa tuddoon na ko pare xasar xa la rek ne wa sabu ulwin juróom-ñaari xaraful isticlaa yi xasara tënk na ko juróom-ñaari baat yi juróom-ñaari lettre yi xussa doxtin xib hmm? kon bépp xaraf bu dul juróom rek ci fan la bokk la xarafu suufe la léegi nag boo ko booy booy jàng nag da ngay wax xaraf xuruful istifaala ak xuruful isticla woowi moo tax mu ne mustafil ak ulu istifaala da ngay xuruful istifaala ak xuruful isticla istifaala isticla hmm? xaw ma leer na am dit leer na de ñu continuer wala ñu taxaw dafa am question ah baaxagum na baaxagum na ok <laughs> ah. Ah. ah am na lan non dama doon tooñ rek naa fi ñaari allah. macha allah that's very good. welcome to them so. amagum na ñaata ñaata melo so far out of the ten. wait euh, six am nañ jahr safaana mooy hams am nañ rixaawa safaana mooy shidda am nañ istifaala safaana mooy isticla hmm? léegi nag munfatixun am na melo yu ubbeeku lañu lan mooy safaanu ubbeeku tëju mooy kon xuruful infitaax lan mooy safaan infitaax itbaaq moo tax mu ne wa saadu daadun qaau daaun mutbaqa mutbaqa ñeenti lettres ñooy lettre itbaaq moo tax ñeenti lettres yi dañoo dañoo diis lool xam nga lu tax ni ñu nekke ni ñu boo leen seetee ci xuruful istixlaa yi da nga fay fekk ñoom ñëpp seet nga saad mu ngi nii xussa daad dartin ah ak ak daad ak ta daa mu ngi nii ta nag wax nañ ne mooy xaraf wi gën a diis ci lettre yi hmm? foofu sax am na am na am na am na am na anecdote ban xaraf moo gën a woyof ci lettre yi lettre arabe yi ah déedéet faa faa moo gën a oyof ci la Hamza ci lettre yi diisi la bokk shadiduha ajid faa faa dina dina dina dina dina dina dina xëy na dinañ ci ñëw waaye faa moo gën a oyof ci lettre arab moo tax yàlla ne la wala taqul lahuma ha fala taqul bu ko wax fekk da nga caa na naqaral say waajur kon nag lu gën a diis taxul ñuy wax ah, borom nu na lay jàngale waaye ñu baña ñu bañ a a taxaw foofu wa sabu ulwin xussa dogtin qib léegi nag wa saadu saad ak bood ak too ak voix ñoom ñooy xuruful baax lan mooy baax gis nga boo leen di wax baat yii nii làmmiñ bi dafay dëpp carrément dafay serré carrément ci kaw gémmiñ bi ci kaw euh, maanaam euh, tuwaalu gémmiñ tuwaalu gémmiñ bi nu ngeen koy waxee palais ah waaw os xoolal waxal os ob gis nga làmmiñ bi dafay dem dafay collé carrément looluy tëj dafay tëju mooy xaraf yi nga xam ne soo leen di wax dañoo boole isticlaa ba pare boole itbaaq moo tax dañoo diis hmm? léegi lan mooy safaanu tëju ubbeeku kon kon bépp baat bu dul bépp xaraf bu dul xaraf bii rek boo koy wax gis nga am ma xam nga mm-hmm. sood bokkul ak maa gis nga maa hmm? kaa gis nga laa ah na dégg nga léegi tey mu leer de ba mel léegi tey ngeen ngeen ngeen léegi yii yëpp damay dem ci damay dem ci bi nii rek ba nga xam ne parce que li ma gën a yitteel fi mu ne nii mooy ñu xam firi mi xam minimumu euh, li muy li muy wundu ak yan lettre ñooy lettre yi lan après nag dinañ am euh, yeneen kii yoo xam ne danañ danañ gën a danañ gën a nu mu tuddati pratiquer euh, exemple ay exemple ak ay exemple léegi wa farra min lubbil xuruful mudlaqa ñaata ñaata ñaata kii lañ amagum so It's. This yeah. Now we have wafarra min lubbin wafarra daw na min lubbin cim xel xaw ma ko daw sam xel foo jëm <laughs> alxuruful mudlaq ñooy lettre yu cate yi lettre yu cate yi daal soo leen bëggee xam fa ra miim nuun laam ba boo leen xoolee ñoom ñépp catu làmmeñ leen di wax mbaa catum tuñ am déet seetlu ko fa ra miim nuun laam ba ñooy leetaru cate yi fa lu koy wax du ci tuñ la jógee ra catu làmmeñ miim catum tuñ nuun catu làmmiñ laam catu làmmiñ baa cati tuñ léegi nag lan mooy lan mooy safaanu cate diggee waaw oh, mën naa nekk diggee mën naa nekk xóot <laughs> mën naa nekk <laughs> léegi nag eh, xam nga bu ñu catee mooy dañooy maanaam wax leen dañoo dafa yomb hmm. dañoo waxu baat yi daanaam lettre yi dañoo waxu seeni safaan nag ñooy lettre yi waxuwut moo tax ñooy xurufu lan ismaat anamu musmatatun mooy yuñ tere lettre yi dañoo waxu xam nga loolu lu muy firéem mooy nga baati arab pour mu neexa wax dafay am lettre yu cate yi baati arab pour mu neex a wax dafay am lettre yu cate yi moo tax doo gis mukk benn baatu arab bu am plus de trois lettres te amul benn ci lettres yi cate yi hmm? du noonu ok fi ñuy jullee num tudd fi ñuy jullee masjid masjid ñaata lettre la am six masjid six waxuma laa ko ñu anglais de déedéet masjid masjid quatre lettres arabe la ñuy jàng waxuñu ah, bàyyil fàttel fat fa <laughs> ah ok est-ce que quatre lettres yooyu est-ce que am am na am na benn lettre ci lettres yi fii mu ngoog doo gis benn baatu arabe composé de quatre lettres ou plus te amul benn ci lettre yi loolu la la bëgg a wax gis nga masjid. Hmm? yaa ngi dégg de. Hmm? ci ci ci ci ci ci ci rek yaa ngi dégg baat bi lan la. yes. ah yes. ah. safiir est-ce que ñaata baat la. ñaata lettre la laa bëgg ñeenti lettre est-ce que amul am est que mucc na ci ñeenti mucc na ci euh, yii nii six lettres yi ah, ban ban lettre moo fa nekk ci six lettres yi ah? am na raa am na fa gis nga moom la moo tax mu ne la moo tax bépp baat bu am ñeenti lettre dafay terewu ci arab dégg nga mu composé ci boo gisee boo génnee lii li ñaata lettre fa ra mim nun lam ba boo génnee six ci vingt huit lan moo ciy des léegi vingt deux lettres yooyu du ñu composé baat boo xam ne ni am na ñeenti lettre mukk te lettres yi bokkuñ ci ah. hmm? xaw ma leer na am déet hmm? soo ko soo ko soo ko gisee rek xamal ne baat ba dafa du baat bi du baat bi dafa am leneen luñ dafa am leneen lu ca nekk hmm? maanaam par exemple xam nga nit ñëw na mën na maa wax ne ma baat bi shadiduha xam nga xam nga shadid xam nga shadid amul amul amul benn ci baat yi am déet waaye shadid baat bi du cosaanam kii adjectif la baat bi cosaanam mooy lan shiddatu ñetti ñetti leetar la comme ñetti leetar la mën naa mucc ci yi am mucc hmm? parce que shiddatu ñetti leetar la shiddatu hmm. hmm. acca léegi nag nañu firi lii firi mu gaaw rek parce que léegi tey heure julli jot ñu tëj ba beneen alxames léegi ci gàttal daal am nañu jahër safaana mooy hams niñ leen di xàmmee bii hams nooyi dafay daw jahër nooy gi day tëju rixwu mooy rixaawatu safaana mooy shiddatu wala bayniya ni ñuy xàmmee ne di xaawatu mooy baat bi du tëju dafay daw shiddatu baat bi dafay tëju bayniya dafay nekk ci diggante tëju ak daw dégg nga de xuróofu hams fukk lañ safaanam ya ci des yëpp mooy xuróofu jaxar xuróofu rixaawa fukk juróom lañu bayniyey juróom lañu shiddatu juróom ñett la xuruful isti'la dégg nga de juróom ñaar lañ safaanul isti'la mooy istifaala xaraf yi kawe yi ak xaraf yi suufe yi istifaala istifaala xuruful seeni safaan mooy xuruful itbaax itbaax wax naa leen mooy mooy dëpp mooy tëj safaanam mooy ubbeeku ñeenti xaraf yi boo leen di wax da ngay gis ne làmmiñ bi dafay tëju ca kaw gémmiñ ga hmm? wa firra min lubbin wa farra wala firra min lubbin ñooy kàddu yi nga xam ne cat làmmiñ ak cati tuñ ñoo leen di wax yeneen yi nag yëpp cat làmmiñ du leen wax cat tuñ du leen wax mooy yi nga xam ne dañoo terewu composé baat boo xam ne nii mat na ñeenti lettre mbaa mu ëpp ko te fekk benn ci lettre yi islaaq du ca bokk mooy les lettres interdites waaw xam nga baat bi boo xoolee sumt a sumt mooy lan man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyakul xayran aw li yasmut mooy na wax yu mbaamu noppi mu ngoog ismaat sumt noppiloo tëj tere mhm. Mhm. léegi nag gis nga lettre boo gis ci lettre arabe yi am na au moins juróom ci ci opposite yi hmm? am na au moins juróom ci opposite gis nga hams lettre yi hams di nga gis kaaf di nga fekk ci ñoom niñ nekkee ci niñ amee ci hams wala nañ jël kaaf ak rek par exemple niñ bokkee ci hams lañ bokkee ci shidda kaaf ak am déet hmm? kon kaaf ak seen ay am nañ melow hams am nañ melow shidda shidda léegi bi nga ñëwee ci sabo ulwin fii ndax ndax kaaf ak bokk na am na fi kon kaaf ak taa kon dañuy nekkaat ci xuruful istifaala istifaala seetlu nga hmm? kon kaaf ak am nañ amagum nañ ñetti melo am na melo hams am nañ melo shidd nañ melo istifaala istifaala am déet bi nga ñëwee ci xuruful itbaax soit boot po voi est-ce que fekk nga fi kaaf ak taa mooy safaanu itbaax kon kaaf xuruf melo am nañ infitaax muy ñeenti melo muy ñeenti melo am nañ kon am na ñeenti melo opposite ci opposite melo yi ban moo des hmm. wa firra lubbin est-ce que fii kaaf am na fi Uh, uh, safaanu safaanu idlaaq mooy lan ismaat kon kaaf ak taa ci ismaat lañ bokk seetlu nga ko maanaam kaaf ak taa waaw am nañu melo shidda am nañu melo hamsa mhm. am nañu melo mhm. infitaax am nañu melo ismaat am nañu melo istifaala hmm? yaa ngi dégg waaw lettre boo jël rek léegi tànnal beneen lettre nga wax ma by by chance oh, xaa <laughs> non non non jëlal jox ma xaa rek jox ma xaa xaa xaa nga wax xaa comme arrahman right uh-huh. ok xaa fa xathahu shaxsun sakat kon xaa bokk na ci am na bokk na ci meloo xaa xaay hams ok léegi mhm. ñu ñëw ci xarufu shidda lafzu ajid qatin bakkat est-ce que fii am na xaa am na xaa mhm. déedéet amul xaa di ajid qatin bakkat xam nga amul xaa mhm. lin am na xaa kon léegi xaa ci yan ci xarafi fan lañ koy boole ci groupe bii nii entre shidda ak rixwu ak ak ak ak ak bayniya fan lañ koy dugal kon xaa ci xorofu rixaa wala bokk ñaari ñaari qualité ngi noonu seetlu nga bi nga ne wa sabu ulwin qid xasar ndax juróom-ñaari lettre yi xaa am na ci kon fooy boole xaa xorofu listiala lan ko lan mooy safaanam xorofu istifaala kon xaa ci xorofu la bokk ñetti ñetti meloo ngi noonu mm. bi nga ne wasaadu daadun taau waaun mutbaq xuruful itbaq ñeenti lettres yi la est-ce que xaa am na ci déedéet ah kon fo kon fooy boole xaa ci xurufu wat non non itbaq xurufu itbaq lan mooy opposite am kon infitaax xaa la ñeenti ñeenti qualité ñeenti bi nga ne wa min lubbin est-ce am na xaa waxin waay lan mooy safaanam xuruuf uh, ismaat ismaat kon xaa ci xuruuf ismaat la bokk noonu nag ngay pratique lettre yëpp ba nga xam ne bu nekk di nga gis au moins juróomi qualité am ci opposite yi kom comme waxtu wi jot na juróom-ñaari qualité yi nga xam ne moom duñ am amuñu ay opposite mooy yii dama leen di lim rek dem julli ji waaye duma leen firi yes waaw safir qalqala inxiraaf takriir tafashi istitaala hmm? safir saad zaay ak siin ñoo ko moom qalqala qutubu jadd moo ko moom liin waaw ak yaa yoo xam ne dañ leena a sukkoon la jiitu fataa ñoo ko moom inxiraaf laam ak raa ñoo ko moom takriir raa ko moom tafa chi na ko moom istitaala boot moo moom ci classe bii di ñëw ko firi waaye ngeen jàpp leen rek safiir mooy un qalqala uh-huh. mooy deux liin mooy ñett hmm? inxiraaf mooy ñeent takriir mooy juróom tafashi mooy juróom benn istitaala mooy juróom-ñaar istitaala istatil nag la bind waaye man li may wax ni ma koy waxee noonu la hmm? istatil la bind ndax wéy wee tax mu ne la istatil daadan hmm? safir un qalqala ñaar liin ñett dégg nga inxiraaf am coming inxiraaf ñeent takrir juróom tafashi juróom benn istitaala juróom ñaar léegi nag lan lan mooy lan mooy safir lan mooy qalqala lan mooy inxiraaf lan mooy takrir lan mooy liin lan mooy tafashi lan mooy istitaala dinañ ko wax ci classe bi di ñëw inchaa allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi